إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين noo ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ ci mboolem tur yu sell yi ak melokaan yu kaw yi nga xam ne sunu boroom mooy ki ko wéetoo ñu ngi jëli di sëlmal sunu yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waanam xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain noo ngi tam sunu borom bi ma defaraate tawfiq ba ñu dellu si waat ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim comme ni ngeen ko xamee ñu ngi nekkoon ci saar wu màgg wi di suratul qasas suratul qasas mooy saar woo nga xam ne sunu borom daf koo tuddee nettali tey mooy bind bu mujj ci saar wi waxoon naa leen ca njaal benn ga ni borom bi subhanahu wa taala téeréem bi daf koo tënkee xaaj yi dafa am yoo xam ne ayatul ahkam la am yoo xam ne ayatul waad ayatul waid ayatul qisas ak yu demee noonu am na ci laaj woo xam ni ay dige lay wax yooya mooy yemel ni àjjana ak xéwal yi suñu borom dencal gaa yu baax la am yoo xam ne sunu borom ay fukk la ca def mooy lu mel ni wax ci sawara ak yi demee noonu am na yoo xam ne sunu borom daf ko def ay xisas tey nag bari na ci alquran bi lool xaw tuuti kan nga ni xisasul anbiya ñi nga xam ne ñooy ulul azmi di juróom ñooñu ak ñaar fukk ak juróom yi nga xam ne ulul azmi ci seen biir la ñuy bokk borom bi subhanahu wa taala tudd leen ci téeram bi kenn ku ci nekk ab nett leen surtu xasas nag surtu yusuf la gën a nural ndax téebi yeneen wax ñu aslëf lu yaatu ci nubuwaam ba wax ñu ci ak juddoom Muusaa rek daanaka moo ko am ak Aysa Yuusuf sax liñ koy beral lépp ak juddoom suñu borom wax ko ci surtout Yuusuf waaye Aysa la suñu borom nekk la ak juddoom ndax la ca nekk ci kéemtaan ak màggaayu suñu borom waaye juddu Muusaa ak la ca nekk ci kéemtaan it nag ak màggaayu suñu borom ndax am xam ngeen ni Muusaa alayhi salaam dafa tombe woon ak jamono joo xam ni buur bu saay saay di reyee borom bi subhanahu wa taala bàyyi ko mu judd ca at ma nii rayee te moom lañ gën a soxla magam judd ca at ma nga xam ni kenn du ko rayee te ku ne xam ni Muusaa lañ gën a soxla loolu kon day wane màggaayu sunu borom ak kàttanam wa annahu ala kulli shay'in qadir wa annahu qad axaata bi kulli shay'in ilma kon sunu borom nett li ñu qisab Muusaa alayhi salaam ba mu jeex ci saar wi nett li ñu relation bu am solo bi dox ci diggante nubuwatu Muusa ak nubuwatu Muhammad te Muhammad gën yonent yépp waaye suñu borom nett li ñu kenn ci saay-saay yi nga xam ni dafa jamonante woon ak Muusa alayhi salaam muy Qaaruun borom bi subhanahu wa taala nett li ñu xisab Qaaruun ba mu yegg waaye nett li gi ak waaru daal di ciy nekk ngir ñu xam ni kat àddina jubluwaay bi dëgg-dëgg nekkul mooy dajale am koom waaye jubluwaay bi mooy dajale aw yiw doomu aadama dajale la lu bari lool waaye bis bi ko dee dikkalee rek dara la du ko ci saxat nga xam xam ngeen ni comme ni ma koy waxee bis la bu yërëmtalu torop bis la boo xam ni yërëmtalu na lool te balaa caa kenn na yërëm kenn na yërëm boppam ba nuppi ndax bis boo xam ne bu yegsee mboolem doomu aadama ji lu mu amoon ci kaw suuf ba ci ay daalam ci la koy bàyyi comme ni ko suñu borom di waxee wa laqad jitumuna furada kama xalaqnakum awwala marra wa taraktum ma xawwalnakum waraa zuhurikum dikkal ngeen lu kenn par kenn mboolem nag li ngeen amoon ca àddina fa ngeen ko bàyyi doomu aadama du yóbbaay lu dul càngaay la muy tàngoo ak parfum ba muy yore du sol mbaxana du sol dàll du sol tubéy du sol mbubb amut leen lu mu yóbbaale ci mu koom lu dul aw yiw moo tax jubluwaay ñëw gi ci kaw suuf dajaleem koom waaye jubluwaay mbokk yi mooy dajaleem yiw kenn ku ci nekk mu yëg ni àllaaxira la koy jëriñ nit ci mooy aw yiw ak mbaax lu ci nit ci am ci yiw àllaaxira daa ko xeeb waaye lu nit ki yóbbaale ciw safaan àllaaxira daan ku yéem mu rëy lool ah wa man amilat min suin yawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida suñu borom nit ki lim def ci ay ñaawteef dana ngéejo lool digganteem ak lam def ci ñaawteef sori yoo lool comme ni penku ak sowu sori suñu borom nett li ñu ab waay bu ñuy wax Qaaruun bari woon alal ba fi mu ne li ñuy sikk sàkk mooy ndax jamono ba xaaru na faatoo tey am na fi koo xam ne am na lu toll ni li xaaru na amoon foogu moom ndax koo xam ne say caabi yi magasin rek lu mat fukki ponkal buñ ko yenoon danañ wengalu ndax diisaay kon magasin la ci nekk bari na lool loolu dafay dem ba doomu aadama bi day foog ne lu ne mën na ko am te it dinaa yar mbokk yi ni nañ bàyyi xel ne wallaay alal boo ko amee ba mu ëpp bu yàggee du tut neexat loolu ñun nag duñ ko mën a xam gis nga nit ki li mu amul te di ko bëgg conséquences yi ci nekk du ko mën a xam yéen ñi jub leen ngeen si gën a jugal nit ki li mu amagul conséquences yi ca nekk su dee wuur nga lu neex du ko xam gis nga alal boo ko amee ba mu bari yenn bari yi wallahi alazim du neex du neex déedéet parce que yàlla subhanahu wa taala xakim la gis nga bakkan doomu aadama ni ko yàlla mooñee pour ak dundam équilibre mën a neex mooy faw léeg-léeg mu xiif léeg-léeg mu suur gis nga nit buy suur bis bu nekk bu yàggee neexaayu lekk dootu ko xamati déedéet nit buy lekk lu neex bu yàggee kese kese kese dara dootul neexati ci moom seetlu gis nga dañuy koo xam day yor alal day dugg ci biir hôtel coppet ci biir teg ci biir coppet ci biir teg ci biir du xam ndax lu mu war a lekk parce que dafay bari ne lu neex loo ko indi day fekk mos na léegi loolu bu yàggee dund bi dootul neexat loolu nag xam naa ne ñun ñu amul dara duñ ko mën a xam beneen bi ci des mooy gis nga da ngay gis waa joo xam ne fi ne mën ngaa dikk këram fekk fa juróom-ñaari peeri daal juróom-ñett juróom-ñaar sax daa tuuti xam naa fukk ak juróom sax kay lu tax parce que bu jëndee ñoom yàgg di soog mu jënd beneen da ngay dem yàgg affaire bi dara dootu la neexat gis nga kooku da ngay fekk waxandeen day fees jël ay yére mu wóor la ni fukki nit buñ bokkoon yére yi du jeex parce que bu jëndee bi après mu soog ko mu gis beneen bu bees après mu soog ko fekk yàlla xam nga yàlla sonk la ni mu mooñee doomu aadama saa bu ko nit bu bëggee jàpp rek dund gi dootul neexati moo tax gis nga fi mu nekk nii da ngay gëmmentu di doyal nelaw di xiif di mar di am lu la metti parce que faw ngay am lu la metti gis nga doomu aadama faw mu am lu ko metti pour bis bu ñàkkee lu ko metti day xam di dugg moo tax dangay wax day am lu ko metti rek mu jóge ci kaw étage bi xaru wala mu jël pistolet tiire ko parce que mënatu koo digérer parce que dafa dem ba tàmmu noos ba léegi xolam palaasu mun nekkatu fa su ko defee problème su ñëwee rek dootu ko mën a digérer mu tiire ko fa mu dee mu jeex moo tax gis nga nag waa ji nga xam ne yàlla dimbali na ko moom daanaka lu mu jëndee attaaya leneen da koy tëb léeg-léeg day daan mbaxal lay réeree mbaa biskit lay jël mu poñ sa ko mbaa mburu mu wow affaire yi day neex lool gis nga gis bu la yàlla wërsëg nga amum koom affaire bi day neex dootu ko bàcc mukk gis nga gis boo xëyee yàlla sa dala wërsëgal la nga am lu bees dafay neex ci yow rëy nga mën caa sant suñu borom moo tax yenn koom yi jëf sa ñaan yàlla te beneen bi ci des bu leen fàtte ni am koom gën a gaaw ci alal li alal nit mooy mooy am koom parce que dafa gaaw ci gis nga jigéen ak alal seytaane da cee max a laxas lool moo tax yéen yàlla di wax ni tiituma ngeen dellu nekk ay bokkaalekat yàlla waaye li may tiit mooy ngeen alal tuuru ci seen kaw ngeen di ko xëccoo comme ni ko ñu jiitu woon doon xëccoo mu alak leen comme nam leen alak yow lii nag ay bind la yu am solo ak yi ñu jotoon a joxe démb yoo xam nañ koo jàng ci xisab xaaru gis ngeen yi ci génne ci ay njàngale ci diggante nit ki bu fekkee dafa dëkk ku yàlla may nan la koy laay wiire ak di ko nangul ci mit ya ko yàlla may ndax wax dëgg yàlla bu la suñu borom mayee alal it nag ah nit ki mën nañ kaa bàyyi mu jëfandikoo ca la nga xam soxla na ko suñu borom kon subhanahu wa taala ci jeexintalu bind bi ci laaye juróom-ñett fukkeel ak ñaar fa lañ taxawoon suñu borom mu ni aoudu billahi min ashaitan irajim bismillahi arrahmani arrahim تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
saar bi jeex di juróom-ñett fukk ak juróom-ñett borom bi subhanahu wa taala mu ne tilka foofa ñuy dégg te yegg gun fa ci aw yiw rek man faa jariñ borom ab safaan rek di fa sonal borom ak daarul axira mooy kër ak àllaaxira gi comme ni ngeen ko gisee woon démb ñu taxaw ci sunu borom ni najaaluha dañ koy def lilladina ñeen ñi nga xam ni laa yuriduna uluwan fi l ardi ak ñoom day réy réylu ak kawe kawe lu taxulee na ñëw ci kaw suuf bëgguñu ko duñu ko def wala fasaada duñu ay yàqkat it mel ni qaaruun ak firawn waaye wala aaqiba mu jëntal ji dara baax day lil muttaqina ñeel na ñi nga xam ne ñooy ñu ragal suñu borom yàlla na suñu borom boole ñu ci suñu borom man jaa képp ku ëndi ku ëndaale kër àllaaxira bil xasanati ci aw yiw te ay ay ji ay ju ju xereñu ju xereñu aw waxin la gis nga ku am aw yiw wax suñu borom waxul ku am aw yiw de ndax nit ki mën naa am yiw ba pare ñàkk ko ci diggante bi moo tax gis nga tadabbur Qur'an wax lu am solo la yàlla néewul ku am yiw de ndax nit ki mën naa am yiw ba noppi ñàkk ko balaa moo dee néewul ku def aw yiw ndax nit ki mën naa def aw yiw ba noppi yàqaat ko néewul ku moom aw yiw ndax nit ki mën na kaa moom ba pare tigi waaye def na ak jaamu yàlla ak mooy yàlla boo xam ne mooy yàlla boo ko day màgg jaamu yàlla ndax yàlla mu ni wala tubtulu amalakum bu leen yàq seen jaamu yàlla la in ashrakta boo bokkaale la yaxbatan na xamalu moo tax déglul aay ji bu baax borom bi néewul ku def yiw de def yiw rek wóorul de mbokk yi def yiw rek rek rek bu fekkee ca nga yara yam wóorul de waaye def ko ba noppi nag muus ñor fexe ba ëndaale ko àllaaxira loolu laay wax ci mbokk yi maa xam ngeen ni nit dana def ak jaamu yàlla vingt ans ca gannaaw nga yàq ko tey wallahi la gis nga nit ki mën naa jaamu yàlla jub guddi mu jooyal yàlla ay bëtam tooy xëpp mu wér ni kii yàlla rek a tax di jooy tey nga xam ne yéen yàlla bi nee na bët yuy jooy ngir yàlla su borom du ko lakk ci safara kenn du ko man yow yàlla rek kenn yëpp seytaane dana la dikkee malaakin bayna aydihim wa an aymanihim wa an shamailihim fépp fu ne dana la ko dikkal pour rek fexe ba yàq loola gis nga benn bi day ñëw rek gars yi di waxtaan waxtaan wi neex ku nekk di wax ay jalooreem rek amoo loo wax mu ne ah yow kay waxal sa nit nga ne sama guddi yi am na génn guddi goo xam ni kay keroog wóote allahu akbar defe ne yow bi ne yaa ngi ci nekk de seytaane ndeysaan nuqati nañ ko fañ ko dencoon te ñaar li ngeen ci ni ñaar fukki at la ci ginnaaw yàq nga ko parce que ngittal am na parce que tudd gi ko tudd ci moom wërta woon a am ndax boo ngittalee rek day yàq jaamu yàlla ashirk arriya dafay màbb jaamu yàlla comme ni bokkaale màbbee jaamu yàlla ndeysaan nga daal di koy nettali benn benn cinq minutes rek nga nettali ko ci rek jaamu yàlla ak vingt ans nga daal di yàqu am nga xasana waaye ëndaale wu wala tubtilu sadaqaatikum bil manni wal ada da ngaa nekkoon ciy jafe-jafe nga ñëw ci man ma dimbali la bi ma la dimbalee ñu demaat juróom-ñaari at ca gannaaw benn bis dara dox suñu diggante rek ñu waxante ay baat ma ñàkkee la kersa wala ma ñàkkee la teggin wala ma wax la lu bon ma yow yaa goreet yow yow ba ma lay defal nangam nangam nangam foofu nit ñi daal di koy déggaale nag yàq nga sa liggéey juróom-ñaari at ya laa tubtilu sadaqaatikum yàlla mooy li ngeen jot a joxe ci sara bu leen ko yàq dul mën ni wal aja mën na mooy bu dul woon ak man yow yaa ko yow amoo ngor yow yaa mooy li bon bonaan yooyu nga xam ci lañu seytaane jaare noonu la topp ko boo misaal boo jot rek bu jege lii rek jox ko moo tax suñu borom ni man jaa képp ku indi sart bi mooy an yaamala biha wa yati biha yawm alqiyama mooy da nga koy def ba noppi indaale ko man jaa képp ku def yi ba noppi góorgóorlu ba fexe ko indaale bil xasanat ci aw yiw fa lahu xayrun minha yàlla dina ko fay lu gën a nekk yiw lam def am na beneen aaya sunu borom ne fa lahu asru amsaliha ah fukki yoon la ko yàlla lay ful wallahu yudaifu liman yasha xam ne sunu borom moom lu ko neex lay ful man ngaa def benn mu fay la ko téeméeri point dencal la ko ñaari at fulal la ko mu nekk juróom-benn junni wallahu yudaifu liman yasha yàlla ay fulee ni ko soob man jaa képp ku ëndaale bil xasanat ci aw yiw ba mu yegg àllaaxira ak am solo maa xam ngeen ni nit dana def aw yiw yu bari waaye du dajeeg moom àllaaxira parce que day fekk yàq nga ko doog a ñëw man jaa képp ku ëndaale bil xasanat ci aw yiw yawma alqiyaama fa lahu xayrun minha yàlla dana ko ko fay ba mu yëg ni def ci yaaba rek a wóor sunu borom ni wa man jaa képp ku ëndaale bi sayi a gis nga tamit jaa indaale bi sayi a ndax nit mën naa def sayi a ba noppi tuub ko réccu ko nit ki mën naa def jombe koo xamante ni tey jii mën na cee tàbbee safara ñu waar ko xelam dellu ci yàlla mu tuub tuub gu dëggu suñu borom jéggal ko ko malaaka mi daal di koy fomm mbokk yi kenn ku nekk ci ñun suñu borom daf koo booleeg ñaari malaaka kenn kaa ngi fii kenn kaa ngi fii ci mbagg mi borom bi wa inna alaykum la xaafidin gis nga de xaafidin alxifd maana alxifd xifd mooy koo xamante ni soog rek la lay teg nii moom du gëmm du xet du nooj du gëmant du sonn du du nii rek la lay def rek xifd xifd xifd xifd mooy da lay wax loo def rek du tay du sonn du gëmant du tardé te malaaka yi nga xam ni ñoom ñooy monté ci suba si balaa yoo dem malaaka yi bonte ngoon dañu ñëw ba taxaw ndax yent yàlla bi nee na wa bi muy tafsir wa quran al fajri inna quran al fajri kaana mashhuda njàngum quran al fajar te mooy jullit fajar malaaka yi monte woon ci guddi gi ak yi nar a ñëw ci bëccëg bi dañ koy teewe maanaam kii day ñëw tombe kii di war a dem ñu xaaral ko ba pare amul sax kee dem nga am espace ci diggante bi déedéet moo tax quran am solo ci waxtu wa quran al fajri inna quran al fajri kaana mashhuda malaaka yi dem ngoon tamit ka daalika dañuy fekkante ñi sunu borom danaa ne waaw yéen du ngeen bàyyi sama jaam bi mu koy def ñu naan ñun kon ñu ngi ko fekk muy joote ak julli ñi demoon démb bu ñëwee ñu ne sunu borom ñun kon ñu ngi ko fekk mu doon julli nga xam ne kii ñëw ci julli la la fekk kay dem ci julli la la fekk gis nga ñooñu moom la xasul basra nata yow yabna aadam wukkila bika malakaani karimaani yaktubaani jamia amalika faamal ma chit doomu aadama xamal ni ñu ngi la tàpp ñaari malaaka yoo xam ne sa mbooloo mi def la ñuy bind bind ak defal la soxla loo def rek bind nañ ko waaye xoola min rahmati rahmani rahim yàlla dafa def kaatibul xasanaat mooy kilifa kaatibu sayiaat kii bind lu baax mooy kilifa kii bind safaan gis nga doomu aadama bu defee benn tiyaaba malaaka mi da koy bind benn sunu borom yi mun ci bi daal di koy mun ci bi malaaka mi bind lu safaan soo defee safaan mu bind benn safaan tey bala kaa bind yéen yàlla bi nee na dañ naan nañ ko may tuut ndax dina tuub wala déet dañ ko may ay quelques minutes xoolal rek musiba ji nga def fi mu nekk nii avant ñu koy bind ñi ngi lay may espace tuuti xool ndax yow di nga tuub wala doo tuub soo demee tuuboo malaaka mi daal di bind te bu koy bind kii koy jox ndigal di ko bind te benn lay bind tey kat benn boobu boo ko tuubee suñu borom baal la ko tey mën nga am chance mu baal la ko ba noppi yëkkati ko teg ko ci place ci yàlla ulaayika yubaddilu llahu sayiaatihim xasanat beneen bi ci des mooy gis nga sunna day tere booy julli yént yàlla bi nee na booy julli bul tafli sa kanam ndax yaa ngi jàkkaarloog sa borom moo tax am na benn imam bu doon julli ci jamono saa sallam dafa jékki-jékki ne xaax ne taf ca kanam gi bi ko saxaaba yi boole yent mu ni folli leen bu ko kenn fale mu dégg yent bi wax yent mu ne ko yow amoo teggin sa digganteeg sa borom moo tax ma folli la mu ni bul tufli sa ndeyjoor ndax sa ndeyjoor malaaka bi moo ko nekk muy na nga tufli sa xaram day tànk su mënta ñàkk mooy jàkka joo xam xëy na suuf la wala nga def sa mos moswaar wala boog nga def ko sa càmmoñ borom xam-xam ñu ni waaw nga def ko sa càmmoñ ndax malaaka dafa néew wala déet ndax malaakaa ngi fi malaakaa ngi fi lu tax ñu may la tere la fii may la tufli fii xufaas yi ñu ni li tax ñu ne la may nañ ne nga taf li fii ci càmmoñ wala diggante nday jor càmmoñ bu fa kenn néewul moo tax ñu naan doo kenn nee doo fa taf mi ngi mel ne bu kenn nekkee sax fekk doo fa taf waaye bu fa kenn néewul te fekk suuf la mën nga kaa taf li suuf ko ñu ne li tax mooy yàlla subhanahu wa taala dafa yërëm jaam yi ba waxtu julli comme waxtu julli la nga xam ne yiw rek ngay wut kaadiru sayi aat day déplacé wu def toog fay di la xaar yi parce que amul defoo ci jëmi ci bàkkaar bu mu bu muy bind bu ko defee déplacé wu jëm déplacé wu moo tax mën faa taf li kii moom mi ngi taxaw parce que li nga war a def lépp ak yiw la xoolal yàlla ni yërëmee jaam si kon képp ku indi tamit ab sabaan bi sayyi'a ah sunu borom mu ni te sayyi'a mooy lépp lu yàlla def kullu ma naha allahu fa huwa min jumlati sayyi'a sunu borom mu ni alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam wal lamamu min as-sayyi'a moo ñu ñaaw yi lépp lu yàlla def sunu borom mu ni képp ku indi ab sabaan fala yujza kenn du ko fay fala yujza du ñu fay alladina amilu sayiat ñi doon jëf-jëf du ñaaw illa ma kaanu yaamalu dul lañ doon jëf ndax yàlla amut lu ñaaw gis nga yàlla bu la ko yokkal di ko bind bi ne parce que lu ñaaw lu ñaaw la te yàlla amut lu ñaaw yéen it muy ñaan naan wal xayru kulluhu bayna yaday yow lépp mi ngi say loxo mu ne waaye wa charru sabaan laysa ilayka amul fi yow moo tax borom bi ñu ne borom xam-xam yi aqida ñu ne asharru la yudaafu ila allahi subhanahu safaan kenn du ko askanalee yàlla gis nga dëkk bu lakk beeg taw bu yàq nit ñeeg ki lakk ci géej géej gis nga ay xeetu safaan la maanaam yàlla li bàyyi koo ci moom lépp lu baax la waaye doomu aadama ci boppam ay ñaawteefam ak yi ko yàlla war a bindee moo tax bu ñëwee ba ci yoon daal di soppeeku imam ibn taymiya ci majmuatul fatawa am na benn mujallad bu mu tuddee kitaabul qadr nga xam ni volume boobu yëpp ci wàllu dogal lay wax nga xam ni buntu bu sensible la ñu doon boo xam ni nit ki mën naa aqida mën naa wér ci al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir waaye bu yegg yawmil qadri xayri yi day baax la waaye sarri yi mu daanu parce que ñi ciy jum dafa bari te buntu bi may wax ay boromi xam-xam bi ay fóori sax daanu nañu ndax doomu aadama gëm ni ñu neex yàlla bàyyi ko ne naqar tamit kadalika waaye li naqari wa ma asaabaka min sayyi'atin fa min nafsik dina daal di nekk safaan la fekk yaa ko sabablu waaye wa ya'fu an kathir yàlla mu ne li may baale sax ah moo gën a bari kon kon ni safaan fala yujza du ñu fay alladina amilu sayyi'at ñi jëf safaan illa ma kaanu ya ah illa mislaha lu dul lan doon jëf wa hum la yuslamun tey subhanahu wa taala mu ni kenn du leen tooñ bi maanaam ki nga xam ne dafa def safaan borom bi subhanahu wa taala mu ne lu toll ni la mu jëf rek lan koy fay te kenn du ko tooñ lan moo waral loolu mooy bi nga defee benn bàkkaar benn bàkkaar la ñu bindal moo tax am na benn jàngalekat bu xereñ bu fi nekkoon mas na maa dégg waxam bu xereñ bu mu mas a wax mooy ku sàggan ba dem àllaaxira say benn benn say benn benn ëpp say fukk fukk dëgg dëgg ku la dóor yooyu nga yeyoo nga dóor sàggan wax na dëgg xoolal boo defee bàkkaar ñu bind benn bàkkaar boo defee tiyaaba ñu bind fukk mu ni nga sàggan ba dem àllaaxira ay benn benn ak fay fukk fukk vraiment buñ la jumaa yooyu dafa sàggan nga wax na dëgg wax na dëgg normalement say fukk fukk moo war a say benn benn waaye nag borom bi mu ne képp koo xam ne dafa indi safaan fala yujza alladina amilu sayiat duñu fay ñi nga xam ne ñoo doon def safaan illa ma kaanu yaamaluun lu dul lañ doon jëf ah am na beneen aaya dani fala yujza illa mislaha wa hum la yuslamuun ah duñ leen fay lu dul lu mel ni lañ doon jëf ndax la nga jëf rek la nga suñu borom di fayal subhanahu wa taala kon mbokk yi loolu war naa tax doomu aadama xir ci tiyaaba lool xam na benn imam da doon nit li mu ni benn waay dafa dem ziyaare armel ba noppi bi mu ziyaare armel mu génn xam naa comme pegg toolam la nga mel ni dikkal ko mu tëdd ci fekk garabam bi mu tëddee mu génn am xaritam bu mu xamoon ci armel yi mu gis ko ci nelaw yi xarit bi ne ko ah yow fi ne yaa tara nelaw buñ ko gis ni ñun fi mu nekk nii buñ ñu mayee ñu dellu suwaat àddina ñaari ràkk rek fi ne moo ñu gënal ñu jox ñu àddina ak li ci biir mu gént loolu ci gént mu tiit yeewu allahu akbar xoolal loolu kéemaanu yàlla la ci ci bàmmeel mu ne ko ñaari ràkk yéen julli rek moo ñu gënal ñu jox ñu àddina ak li ci biir parce que am nga ki nekk armée yi àddina ak li ci biiram boo ko joxee du ko jël parce que soxlawu ndax réalité yay dox ko ak yiy dox ci bokkul moo tax doomu aadama lu mu am ci tiyaaba na ko xeeb léeg-léeg di nga am ci aw yiw lu bare bare bare bare bare waaye boo demee àllaaxira loo ko yóbbu ci ay bàkkaar dana bari ci yow ak lu mu tuuti tuuti fii bu demee mu bari waaye loo ko yóbbu ci aw yiw lu mu bari bari bari boo demee xeeb mo ne amu ko pièce bi ñu fay weccantee pièce bi ñu fay weccantee ndax xam ngeen dëkk boo demee faw moom pièce yi ñuy weccante parce que jëflante faw mu am waaye pièce bi ñuy weccantee àllaaxira mooy mo ne tiyaaba euro amu fa CFA amu fa franc franc ci amu fa dollar dara amu fa li fa am rek mooy monnaie bu ñuy tuddee tiyaaba yént yàlla bi leen saxaaba yi atadruuna man al muflis est-ce que xam ngeen kan mooy ku kutus ki saxaaba yi ne ko kutus de mooy koo xam ne amul dërëm wala mu doon commerce affaire bi perte mu ne déedéet jublu ma ci kooku de ñu ne ko waaw kon kan la mu ne waa joo xam ne ñëw na àllaaxira ndeysaan te jaa bil xasanaat man jaa moom am na jaa moom waaye nag dafa indaale jaa ba noppi nag am lu ko galgal te yëgu ko dafa indaale ci ay tiyaaba lu toll ni ay montagne waaye ndeysaan mu ñëw ba àllaaxira ñu àtte ko ci tiyaabaam yi dara desut lu dul mu dugg àjjana nag léegi benn waaye mu ne suñu borom kii xaaru diw ñu ne ko xum kay mu ne téel téel suñu borom ni ko kaay waxal ak kii bala ngaa jàppal ko xam yow laa tuzlamu nafsun shay'an tey kenn toom benn bakkan tooñante amu fii kat yéen yàlla may ne delloonte leen tooñ yeeg àq yi balaa ngeen a ñëw koo xam ni mu ne amu ko waaye tiyaabaam lu ngeen jotee mu ne kii moo mën a sàcc sama alal ci àddina ndax xam ngeen dana ko xam ndax yow ma tub la sarair sutura yëpp la yàlla lay xaar yi lépp lu ñu xam loolu la ñuy xam ker ñu ne ah lu mu sàccoon ñu ne nangam ñu ne nañ xool lu mu tolloon ci ay tiyaaba ñu ne moom kat am na sens bariwut lam sàcc dal ko nañ quatre-vingts tiyaaba ñu dindi quatre-vingts tiyaaba bi ñu xoolee quatre-vingts tiyaaba teewut mën ngaa dugg àjjana ba léegi waa ji yolloo si yolloo si waa di dem yent yàlla bi ne benn waay ñëw ne ah moo tuuroon sama deret kii moo ma rayoon te ray deret dafa garaaw dafa rëy ray bakkan ñaata tiyaaba ñu ne ah moom kat faw nga fay ko million yi tiyaaba kat nag moom parce que ray bakkan dafa garaaw ndax bokk na ci bàkkaar yi gën a mag mbokk yi million yi tiyaaba buñ ko génnee ci say tiyaaba nga jeexal doy des dootul bareeti léegi ñu génn ko ci ay tiyaabaam ay tiyaabaam jeex fa ñuy négocier naan ndax dee dugg àjjana du dugg àjjana benn waaye daggee fële ca làng nga ñëw ni moo ma tuumaaloon te góor kenn du ko tuumaal moo ma tuumaaloon na ma fay ñu ne ah moom ay tiyaabaam jeex li may wax xadis bi la de xadis bi laay nekk ni ci wolof ñu ne ko ay tiyaabaam jeex na de yéen di yàlla beneen ñu ne ko kii ay tiyaabaam jeex na mu ni man même bu ay tiyaabaam jeex man sama yéen nekkul ci loolu moo ma tooñoon te yow yàlla yaa waxoon benn bakkan du tooñ morom man nañ ma fay man nañ ma fay rek ak suñ ma fayee baax ko comme suñu borom ku maandu la suñu borom xool ay tiyaabaam mu jeex mu ne xanaa leen dalaa tuumaaloon ñu ne waaw ci misaal ñu ne tuuma gi ñaata la ñu ne juróomi téeméeri tiyaaba te amatul tiyaaba ñu ne yow indi sa ëmb bàkkaar nga indi sa ëmb bàkkaar jël ci juróomi téeméeri bàkkaar yéen ko mu remplace juróomi téeméeri tiyaaba yéen yàlla mu ne al muflis man yati yawma al qiyamati وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ها حتى لم يكن من حسناته شيئا كي يدق تتيابا جقي تتيابا جقي بتيابا يختر كأي بكارا جيخد يلدي على بين جلت بكار غاية سفككو فطرحت عليه نكبك تكوم ثم طرح في النار نتابع القصوى تدنو بنت عجنا دقل ننك لسفاسة برمدق عجنا وفرح fii la ñàkk sens nag mën a yem xam nga da ngay dégg diw amul sens lii nag mooy ñàkk sens ndax doomu aadama lépp lu mu ñàkk te mën koo rattrapé waat ci kaw suuf rek am na sens waaye fii loolu ñàkk doo ko rattrapé waat moo tax suñu borom mu ne ku andi aw safaan na nga yëg ni kenn du fay nit ki lu dul la nga xamante ni moom lañ doon jëf waaye kenn du leen fay lu dul loola te kenn du leen tooñ suñu borom mu ne subhanahu wa taala inna alladi sa borom mi nga xam ni farada alayka alquran moo wàcce ci yow alquran yoonal ko ñu koy jàng la raadduka dana la dellu si ila maad ca kërëg àllaaxira ga aaya ji loolu lay tekki aaya ji loolu lay tekki aaya ji li ma wax lay tekki fii nag ci réew mi am na ñu fiy woote woo ak yeneen déglu naa leen bokk na ci seeni tegtal inna alladi farada alayka alquran mooy ki la faratal ci alquran la raadduka ila maad dina la delloo ci waat ci àddina ñuy wax ne Muhammad ba dana dellu si waat xaw ma ay saama xaw ma nangam loolu ay kàcc la loolu dama ni intellectuel yi sax vraiment yaakaar naa gars yi jàng France sama mbokk yi intellectuel sax vraiment xel sax nanguwu ko waa ji moo weex fee mu ñuul fii vraiment loolu bul jàng benn taar ci diine nekkal intellectuel rek xel nanguwut loolu waxuma laa sax xam-xam ab yonent bu yàlla yónni muy xees fee di ñuul fii di soppee ku mel ni njuuma yàlla du yónni ku mel noonu yàlla dañ ñun ni kenn koo xam ne dafay correct mel nee na ni ñu xam ko diw mooy diw juddoo fii yaroo fii mel nii mu dee dee na mu jeex kenn rek mooy dellu siwaat muy Isa borom xam-xam yi juyo nañ ndax dafa dee wala deewul waaye li gën a dëgg ne ànd taxqiq mooy deewul sunu borom mu ne ko yaa Isa inni mutawaffiik danaa la faa te alwafa day tekki faatu waaye day tekki nelaw day tekki leneen ndax sunu borom tegtal na ko in huwa alladi yatawaffaku bil layli wa yaalamu ma jarahtum bin nahar foofu wafaat la jëfandikoo tekkiwul dee mi ngi tekki nelaw kon inni mutawaffiika la muy tekki mooy yàlla nee na danaa la faat faat googa du faatut dee waaye yëkkati la wa raafiuka ilayya dama lay yëkkati kon li gën a wér inda taxqiq mooy Isa mi ngi dund xatta al aan ba kaay bi gis na ko teg yéen boobu dana dekkiwaat waxul day judduwaat day jëllu siwaat lay wax ah dana wàccaat dana wàccaat moom Isa buy wàcc du wàcc après alhamdulillah buy wàcc day teg ñaari loxoom ci kaw ñaari mbaggi malaaka buy wàcc day nekk koo xam ni karaw gi day bari lool sëq liis daanu ca gannaaw mel ni ko abroi ba ba ba ba bañe ko su sëggee nii da ngay seen kawar gi di topp ay ndox mel ni ay peri jamaa xet bu neex la yore fii ba Tambacounda booba taxawoon xet bi dalay xeeñ sallallahu alayka ya isa ah yemul ca loola waaye zone claire lay sol deux pièces lay doon zone claire bu ko nit ñi gis day fekk muy génnee ca fu ñuy xajju rawxa nekk ca katay Jérusalem jaar ci diggante ñaari montagne ci naan labbayk allahumma labbayk allahumma jëm ca Kaaba ga day umra ji mbaa muy aji léegi nag ñaara am mooy da ngay gëm sa yonent mbaa nga gëm keneen lii ma la wax moom la la sa yonent wax sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des mooy saa bu dellu siwaatee nag ah 40 ans la fiy def 40 ans la fiy def amut dee na ñu naan làqas daa làqasu fi ak daaj xam nga ñu ngeen ko waxee dis dis dis lan dis dis lan disparaître déedéet di disparaître de yéen yàlla may de inda indama yutawaffa yusalli alayhi almuslimun su faatoo jullit ñi ko jullee disparaître déedéet beneen bi ci des moom mooy quarante ans ku ko yéesal doo ko ku ko ëppal doo ko ku fi ñëw ba jàll te masiixu dajjal feeñul ba nga rey ko nit ñi gis ko doo ko ku fi ñëw te yàjuuj ak maajuuj ñëwuñ doo ko xanaa wax dëgg yàlla nag bu fekkonte ni ci lënt lañ nekk nag xanaa mbir yi leer na leen kon inda alladi farada alayka alqur'ana li muy teg mooy ki farataal ci yow alqur'an wàcce ko ci yow la raadduka dina la dellu si ila maadin kër àllaaxira ngir lan ngir fay ñi baax la yajzi alladina asaau bima amilu gis nga de aaya jooju asaau bima amilu ñi doon def lu ñaaw dañ leen di fay waaye bima amilu lañ doon def lañ leen di fay wa yajzi alladina axsanu waxul bima amilu de bil xusna mooy lu gën a rafet lañ doon fay tew li yajzi alladina asaau bima amilu loolu huwa al adlu wa yajzi alladina ahsanu bil xusna loolu huwa alfadlu adlu mooy nit ki lam def nga fay ko ko fadlu mooy nit ki li mu def nga multiplier ko ci sag mbaax te loolu yàlla mi ngi ko jagleel ñu gëm suñu borom yàlla suñu borom boole ci kon inna alladi farada alayka alqur'ana ki farataat yow alquran wàcce ko ci yow la raadduka dana dellu ila maad ci alaxira allahuma beneen firi rek moo ci am boo xam ne mujahid wax na ko jële ci ibne abbas mooy ki paratage cew alquran dana dellu si waat makka mu firee makka ila ma aad kon bu amee menn firi mu jàdd sax moomu lay doon borom bi subhanahu wa taala mu ni inna alladi farada alayka alquran ki farataal ci yow alquran mooy ki ko wàcce ci yow la raadduka daf lay dellu si ila maad maad foofu mu mooy kërëg alaxira ja borom xam-xam ñu ni jubluwaayu dellu si na ci alaxira ji moom mooy maanaam ngir yajzi alladina ahsanu bil xusna wa yajzi alladina asaau bima amilu kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni inna alladi farada alayka alquran la radduka ila maad sunu borom mu ni qul waxal ne rabbi sama borom alamu aji xam la man jaa képp koo xam dafa indi bil huda ci njub borom bi aji xam lam ci indi njub ki nekk ci njub wa man huwa ak koo xam ne mi ngi nekk fii dalalin mubin ci ak cànkute sunu borom xam na leen laa sakka ne sunu borom xam na ne yonent yàlla bi alayhi salaatu wassalaam moo nekk ci njub laa sakka ne sunu borom xam na ne keneen ku dut moom di nekkoo ci lim nekk yaa nekk ci safaan waaye sunu borom lii daf koy wax yonent bi li tasliya lii la ñuy tuddee ayatu tasliya mooy dëfal nit ki nekk ci ay problème nga wax ay wax comme wa duha wal layli ida saja ma waddaaka rabbuka wa ma qala wa lil axiratu xayrun laka min al ula wa la sawfa yutika rabbuka fa tarda loolu ay tasliyaat la ah yàlla waccu la sànniwu la àllaaxira gën ci yow sunu borom dana la jox ba nga doyal xanaa da yaa ko nekkoon jirim sunu borom yiir la yar la ah xanaa da yaa nekkoon ku ñàkk suñu borom may la ba tey nga nekk amir jiite jullit ñi ñëpp ah kon nag fa amma alyatima fala taqhar wa amma saila fala tanhar wa amma bi nicmati rabbika fa haddith ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablik kenn du deesul di ma yuqalu laka mooy duñ la wax mukk lu dul lan waxoon yonent yi la jiitu woon maanaam façon saaga wuñ ko saaga wala lu bon luñ ko wax rek waxoon nañ ko yonent yi la jiitu woon sunu borom mu ne ko wa ma kunta nekkoo tarju doon yaakaar an yulqa ilayka ñu wàcce ci yow alkitaaba téere bi est ce que avant la yàlla jox yonent bi yaakaar nga di nga nekk yonent déedéet da koo bett maanaam yàlla mi ngi koy fàttali xéewal yi ko yàlla defal est ce que yonent bi avant muy am 40 ans xamoon na ni yàlla da koy yónni def ko yonent déedéet moo tax mu ni ko maa kunta nekkoo tarju doon yaakaar ay yulqa ilayka ñu wàcce ci yow alkitaaba téere bi loolu yaakaaroo ko woon gis nga doomu aadama li ëpp ci ay xéewal da koy bett te waxoon naa leen ñeenti kàtt la yàlla joxee du duwa wala ma balaga asuddahu wa sawa gisoon ngeen ko ci Moussa alayhi salaam ndax xam ngeen ne ñeent fukki at day fekk nag xel mi ñor xom ba ma tawit yore ko gaagu ba rënk léeg-léeg nit bay waana lu muy def bu amee ñeent fukki at ba ko bari waana lu muy wax bu amee ñeent fukki at ba ko bari waana nit naqari deret tàng lool bu amee ñeent fukki at jëm kaw rek nga gis affaire yi commencé door bi wàññeeku parce que yàlla dafa def doomu aadama gis nga bu commencé dégg bàyyi mbaa maam mbaa yooyu rek dafay am awaafi di yuy rës day am yuy rës gis waa joo xam ni dafa tàng jër ba gën a tàng kaani wax xat naqari deret kenn mënta dëkk ak moom nga dund ak moom gis mu am quarante jëm kaw rek affaire yi commencé wàññeeku parce que saa boo déggee bàyyi rek am na lu suqati ko ci yow maam moom boo ko déggee rek affaire dana rës wax noonu la yàlla bindee doomu aadama moo tax ngay dégg ñu naan ya maam day yàq déedéet maam daawul yàq xam nga problème bi lan la problème bi mooy maam dafa dem ba toll foo xam ne dootut amati doom te doom ñëpp koy bëgg kon kenn rek la mën a amee doom mooy ab sëtam moo tax maam fi ne sëtam lay gën a bëgg ci doom bi léegi loolu tax ñu naan yarab maam day yàq fekk déedéet maam yàqul de yàqul da fekk foofu la toll mooy maam amatut doom kon li mu gis muy lu ndaw dina bëgg ko doom loolu rek la loolu rek la yàqul de yàqul de maam day yar comme ñëpp waaye lii moo tax nag moo tax doomu aadama yi yi awaarit bu ko gaaree da ngay gis mu dem ba yaru xale mën naa yàq ci ay loxam te fekk lii moo ko sabab sunu borom mu ne ko yaakaaru woon ñu wàcce ci yow téere bi illa rahmatan lu dul yërmande joo xam ni ah min rabbika mi nga bàyyi ko ci sa borom ndax yàlla dafa yërëm xeet yi moo tax mu wàcce ci ñoom téere bii ah huwa alladi baata fi l ummiyina rasula minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim muy benn wa yuallimuhum alkitab wal xikma muy ñaar wa in kaanu min qable fi dalalin mubin ci xadisam ayabu ibni ximaar ci saxix muslim yéen yàlla bi nee na yàlla dafa xool kaw suuf kaw suuf lëndëm lool bari ay bàkkaar lool bon lool suñu borom jëppi waa kaw suuf ñi cay arab ak ñi ci dul arab waaye yàlla wàcce ci ñoom ab yonent bu ñuy tuddee muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jàngal leen ay jàngale ba noppi seytaane daal di ñëw nag bu seytaane ñëwee nag daal di araamal loo xam ne suñu borom moo ko lu mu tëddee woon daganaloon jaxas jaxas jaxas def ay jaxas jaxas yu bari kon doomu aadama bi mu xam ni wàccu fi yonent bi yërmande la ci xeet wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla ci boppam daf ñoo yërëm moom borom yërmande la ndax xam ngeen mbokk yéen ci yàlla bi nee na sunu borom am na téeméeri yërmande quatre-vingt-dix-neuf yëpp mi ngi ko denc ba àllaaxira benn yërmande kese la yàlla wàcce ci kaw suuf yërmande jooju ci nga am ma am ci kay am ci kata Amérique am ci kata Espagne am ci kata Afrique am ci kata Europe am ci fas wi sax am ci mbaam mi am ci mbaam mi am ci ba boo xàccee bi yar dóor doom ji rek mu bëgg laa wangeen mbaam mi sax mën a am ci yërmande jooju xoolal yàlla ni mu ngi yërëmee subhanahu wa taala yonent bi nag moom sallallahu alayhi wa sallam ah xala mbir yee yam nag allahu akbar maa xam ngeen ni mbokk yi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fanaane naa tuur ay rangoon ba fajar jot ngir yërëm ñu ñun ñii benn bis bilaal nee na yonent bi day naafila guddi ma ñëw fekk muy naafila muy jàng aaya gi nekk ci jeexitalu suratul maida yàlla di fa Isa di waxee yàlla in tuadibhum fa innakum ibadu soo leen mbugalee say jaam lañ de waaye boo leen yërëmee de foofu la gën a baaxee yonent bi di baamtu aaya bi di jooy di baamtu aaya bi di jooy ba fajar jot bilaal nee na bi ma koy wooti naan ko solaatu na njulli jot na maa ngi teg si jaara bi tooy xeet ndax am yërmande ci xeet yi bëggul yàlla alak leen yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog ba mu yàgg mu ni saxaaba yi tey waay su ma dajee woon ak sama gaay yi waaye sama soppe yi sama xarit yi saxaaba yi ne ko yonent bi ñun du ñu say xarit mu ne ahan kay waaye nag ci di samay saxaaba ngeen ñu ne ko ñan ñooy say xarit kon mu ne mooy ñoo xam ne dañuy ñëw ci mujjug jamono dégg Muhammad gisuñu Muhammad gëm ko bare di ko ndamoo fuñ mën a toog allahu akbar allahu akbar mbokk yi gis nga yonent yàlla bi alayhi salaatu wassalaam ah da doon ñaan yàlla subhanahu wa taala yonent yàlla bi nee na yonent bu yàlla ma ko yónni yàlla defal na ko benn lettre passé boo xam ne la waxal tey loolu bëgg ma defal la est-ce que xam ngeen loolu yonent yi yàlla yónni yëpp kenn ku ñu nekk suñu borom day xëy benn bis rek ni la waxal loolu bëgg ma defal la tey nga wax sa ñaan li nga bëgg yonent yàlla bi nee na ñeneen ci yëpp wax nañ seen bés ba mu des man man saa bopp maa ngi koy dencal sama xeet ba àllaaxira allahu akbar mbokk yi xool bii fii fii la koy yërmande mën a yem wallahi yonente yàlla bi saa sallam arxam arxamu bina min walidina yaay ak bàyyi li ñuy yërëm yërëm doom Muhammad moo la gën a yërëm sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nga loolu la saxaaba yi xamoon moo tax yonente bi saxaaba yi teraanga gi ñu ko doon jiñ gi ñu ko doon fay yonente bi leen ko jiñ ba noppi sallallahu alayhi wa sallam bëgguñu woon lu ko metti bëgguñu woon lu ko naqari wallahi saxaaba yi am na ci ñoo xam da ngay bàyyee lekk laaj ngir ni yonent bi di ko lekk waxoon na leen abu ayub al ansari boobu toggalee yonent sa salam togg bu am laaj yonent bi lépp ku mu kiis lool lu tax lekkoo ko mu ni ko dafa am laaj wa inni unaaji man laa tunaaji man damay waxante koo dul waxanteel mooy jibril abu ayub a xaraamun hu ndax lekk laaj daa araam mu ni ko déedéet man maa ko sib rek mu ni ko laa jarama idan akrahu alladi takrahu ya rasulallah bis ni ki tey daal comme demee na noonu même bu araamu tit man bàyyi naa lekk laaj ndax bañ la la li nga bañ yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar gis nga abu hurayrata radiallahu anhu toll nay jamono ci ci ci ci ci ci jamonoom borom xam-xam ne dañuy wax ne maanaam toog na ay fan deful xalqa jàngale wut in alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah xaddatani xabibi rasulullah fa lay mën a yem rangoon yi tuur mu jooy ba xalqa bi jeex mu jub dem kër bu ëllëg alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah xaddatani xabibi abal qasim du mën a yeggale day tudd yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam jëm mi tudd yonent bi rek du mën a ànd teg sa bopp wa hada gayatu alxub hakada almuhib ku bëgg nii lay mel ndax yonent bi dafa amul njërmande ci xeet bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal rek benn bis am benn juif boo xam da doon liggéeyee këram ab xale ci surga yi la bokkoon yonent bi toog ay fan gis ko mu feebar mu di ko seeti yonent bi ñëw fekk mu ne ko yow tee ngaa tuub nga dugg ci lislaam balaa ngaa dee ngay tàbbi safara xale bi daal di geesu xool baay ji baay ji ne ko ah man sama yoon néew ci bu bëggee tuub tuubal xale bi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xoolal yonent bi génn mel ni sawaay koo xam ne dañ ne ko tey nga dugg àjjana muy génn di dóor poj ah donc alhamdulilah alladi anqada hada min annaar di ko wax ba keroog mu yegg kër maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo xëcc liwaa ji ba dugg safara yit yàlla di ko amul mbir mën la ci xeet bi moo tax yàlla mu ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin doon wax ngeen ne innama ana rahmatun muhdaat man yërmaane laa ju leen yàlla may yéen xeet bi sunu borom mu ne ko ah ñun yàlla day subhanahu wa taala yi wàcce wuñ ci yow téere bi illa rahmatan lu dul yërëm jaam ni waaye yow it nga nekk yërmande kon fala takunanna bul nekk zahiran di dimbalanteeg lil kaafiriin ñi nga xam dañoo weddi yàlla subhanahu wa taala bul dimbalanteeg ñoom bul aliyewoom ñoom bu leen yaakaar mbokk yi baa xam ngeen xaritoog ab yéefar xaritoog ab yéefar aliyewoom ab yéefar di dimbalanteeg ab yéefar dafay màbb ay jaamu yàlla dafay màbb jaamu yàlla parce que day yàq aqidatul walaa wal bara ci aqidatul walaa wal bara ci tomb yi gën a am solo ci buntu aqida la bokk yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda laa tajidu qawman yuminuna billahi wal yawmi alaxir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulah benn bis yéen bi dafay dem xare ba ci yoonu benn ponkal ñëw ngandam ponkal moo xam ni sa waay doole jaasi ju gudd mu ne yonent bi man daal dëgg-dëgg gis naa yéeme yi liñ lay def neex ma ma ñëw pour dimbali la yonent bi ne ko est-ce que jullit nga mu ne ko duma julli mu ne ko tournéem inni la astainu bi kaafir man soxlawu ma dimbalul yéefar allahu akbar ab jullit warul am soxla ci yéefar yéefar moo war a am soxla ci jullit ma al asafi shadid xoolal tey li ñuy dund dañuy far jigéen ñi léegi jëkkëri tubaab lañ bëgg defe naa noonu la góor ñi jabari tubaab lañ bëgg léegi defe naa noonu la da ngay gis koo xamante ne wallahi xaritoog ab yéefar boo ko gënal xaritoog ab bala balaa sax xol bee xottate ko wala mu daggatoo rek nga dégg ko naan jullit ñi ëpp yéefar yi ëpp yërmande ay jullit ñi loolu dafa rus sax ab jullit di ko wax ab yéefar naka la mën a ëpp yërmande ji loolu mustahil mënul nekk parce que yàlla li mu def ci yërmande ci xol su aji gëm suñu borom def ko kenn ci kaw suuf dafa fekk kay jullit yee nasax ñoo yées ñoo bon ah moo tax ba juif ba dajeeg jullit ba jullit ba naan ko ndaati ko aaxiru zaman ñëwee ba Isa wàcc bañ jàpp leen def leen nii def leen naa xam nga loolu am na yonent yàlla bi nee na bu Isa ñëwee dinañ xeex ak yéefar yi xeex bu métti ba xeer yeeg garab yi sax dañ naan ee jullit kaay am na yéefar bu laa xam si kaay xeer mooy wax jullit bi naa ko bu ñu dajeeg yéen ba xeer yi di ñu wax nangam nangam yéefar bi ne ko waaw wax nga dëgg de waaye yooyu jullit da du doon yéen gis nga loolu aw xas la li mu ko wax aw xas la yooyu jullit du doon yéen mooy da ko bëgg a wax ne yooyu jullit yu ragal yàlla la ñuy doon yu jaar fa war a jaar suñu borom may leen wax na dëgg nag waada allahu alladina amanu wa amilu saalihaat la yastaxlifannahum fil ard sart ba mooy yaabuduna la yushrikuna bi shay'a dañ may jaamu duñ ma bokkaan ak dara kon gis nga borom bi subhanahu wa taala mu ne kon bul nekk kuy dimbalanteeg ab yéefar sunu borom mu ne ko wala yasuddunaka bu mu la baare bu mu dox sa digganteeg jottali téere yàlla bi dara wala yasuddunaka bu mu la baare an ayatillah ci jottali aaya yàlla yeeg wasaare ko ak gindi nit ñi baada id unzilat ilayk ginnaaw buñ ko wàccee ci yow bu la dara baare nag bul faale ay pexe te nga xam ni wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu xayrul maakirin maa nit ki di ciit su ma defee lii ñu def ma lee su ma liyee ñu tëj ma suñu borom mu ne ko déedéet yooyu moom bul ko faale bul ko topp topp gis nga yonent yàlla saa sallam keroog bi yàlla wàccee ci moom wallahu yaasumuka min annaas min annaas yàlla moo lay garanti keroog jooga la yonent yàlla bi am garanti bu mat fekk lu ko jiitu yàlla mënoon na ko garanti subhaanahu waaye da koo bàyyi pour ñu xam ni kat mbindeef la comme mbindeef yi keroog bi yonent yàlla bi takkee safiya bint xuyay nga xam ni safiya ci xeeti juif yi gën a màgg la cosaanam yonent bi takk ko saxaaba yi defar waral gi ci ngoon gi noonu guddi jot yonent bi dugg ci biir xaymaam abu ayub al ansaar yi daal ne ah ab juif lii daal dalul sama xel saxaaba yëpp tëdd abu ayuba kese jonkan ci bunt bi di xaar mu ni kurkur laay dégg rek ndax juif bii ñu may yonent bi wóolu ko amaana mu lor yonent bi saxal mu jonkan ci bunt bi jonkan ci bunt bi ba fajante yonent bi daal di gees ñëw ku ca paaral fii mu ne ko man la abu ayub yow loo def fii mu ne ko man ne damaa xam ne ki nga jëm soxna démb ab juif la dëgg la tuub na nag dugg na ci lislaam ma ciit ay loram yegg ci yow allahu akbar moo tax ma fanaan fii yent bi kontaan pour saxaaba yi ni ñu bëggee woon yent mu kontaan daal di fëgg dëndam ni ko insha allah yàlla moo may gaar aar gaar aar demal fii mënumaa lor yàlla wàcc ne ma ci ci man aaya jot wallahu yaasimuka min annaas kon borom bi subhanahu wa taala mu ni ko dara bum la baare jotali li nga xamante ni mooy aaya yàlla yi baada is unzilat ilayka ginnaaw buñ ko wàccee ci yow wadu na nga woote ila rabbika jëme ci sa borom wadu na nga woote ila rabbika jëme ci sa borom mooy na ngay woote tey leeral tey fàttali wala takunanna bul bokk min al mushrikina ci bokkaalekat yàlla mbokk yi woote day jëme ci yàlla ala basira ci lay tege waaye bokkaale yàlla yonent bi da koy tere yàlla da koy tere subhanahu wa taala xam ngeen lan mooy bokkaale bokkaale mooy loo xam ni cërëb yàlla kese la ñu daal di koy jiiñ ab doomu aadama wala ñu sedd ko cëb cër suñu borom mu ni wala tad'u bul jaamu bul woo bul ñaan bul yaakaar bul dimbanikoo bul xittilikoo ma allahi di booleeg yàlla ilahan axara beneen buur beneen yàlla yàlla rek mooy yàlla bunt bi mbokk yi bunt bu am solo la gis nga bokkaale yàlla lu garaaw la sunu borom nee na yonent yàlla yi ca suuratul an'am ba mu limee ku ni walaw asraku ba mu limee yonent yi lim xéw lim leen defal mu ni walaw asraku ñoom yonent yii laay waxal buñ bokkaale woon yàlla la xabita anhum ma kaanu yaamalu li jëfoon lépp yàlla maam yàlla xool yonent bi ni ko yow laay waxal la wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amalu et puis wala takunanna min alxaasirin soo bokkaalee yàlla sa jaamu yàlla yépp ay yàq te da ngay perte bu dee nii yàlla yonent bi ko faman duuna muhammad bokkaale yàlla mbokk yi bokkaale yàlla bari na tey toog zahara alfasadu fi lbarri walbahr wa hal hunaka shay'un afsadu min ash-shirk ndax am na lu dàq yàq bokkaale yàlla yaakaar ni am na kenn koo xam ni su ma jàqee man damaa xittiliku ci moom ñaan yàlla di ñaan yàlla ci barke diw loolu ci bokkaale yàlla la bokk même yonente sa sam kenn du ñaan ci barke déedéet ci barkeb Seydina Muhammad déedéet sallallahu alayka ya rasulallah waaye nag yent bi kenn du ñaan ci barke xam nga ñaan ci barke mooy la nag yàlla may léeg-léeg nga dégg sax ku ne yàlla may yàlla may nangam ci barke alquran al karim dëgg la alquran am na barke loolu kenn wéet ñu ko waaye problème mooy yàlla na ma may nangam ci barke nangam li muy tekki mooy yàlla kat mënu maa may nangam lu dul da nga koo jaare ci barke bii moo tax ma wax la ko yàlla kenn du ko conditionné kenn du ko wax li muy def moo tax yent bi di ko tere benn ngo petaaw ngisaane seet yi xàmb yi wallahi lépp ci bokkaay la bokk yent yàlla bi nee na petaaw kat ngisaan kat seet kat xéem kat bu xaaba kat noo ko mën ci tuddee képp ku dem ci moom mu di la nga di ko seetloo mu seetal la mu wax la nga gëm soo dellu see quarante jours di nga ko julli c'est comme zéro yàlla du ko nangu am na beneen riwaaya ne ni man ata kaahinan fa saddaqahu ma yaqul faqad kafara ma nuzila ala muhammad ku dikkal bu xaabakat seetkat gisaanekat pettaawkat ku mu ca mën a doon mu nettal la nga déglu ko yéen yàlla bi ne ne weddi nga liñ ma yónni woon kooku moom di ko def moom bokkuñu ay waxam ndax moom bokku ci lislaam xam moom daa bokku ci lislaam yow mi dem kay lu muy wax yow ndax bokk nga kenn bokkoo ci bañ naan dinañ la nangul ak duñ la nangul waaye kay moom bokkatul ci lislaam kumpa yàlla rek moo ko xam subhanahu wa taala doomu aadama ji am xaaw wala pettaaw wala lu mu mën a doon mu jàpp ni ay njëriñ ak lor day bàyyi koo ci kii mu dakk wala mu wéet fu mu ko mën ci wéet ci bokkaale yàlla yi la dugg nital te xoolal xoolal réewu taax yi tey ni ci xàmb te xoolal seytaane bu garaaw la gis nga seytaane su bëggee nit ñi nit ñi mooy yàlla subhanahu wa taala ci bunt bi xam nga nu muy def seytaane day ñëw dugg benn waay di ko kallaw kall kallaw kallawi loo waa ji kallaw kallawi keneen yóbbu leen ma ci diw yóbbu leen ma ci diw yóbbu leen ma ci diw gis nga buñ ko yóbboo ci diw mu fekk seytaane ci mooy wax de waa ji waxut de buñ ko yóbboo ci diw waa ji xool ko ni kii faw ñu reyal ko bëy wu xonq ak ginaar gu xonq joxe juróom-ñaari sër yu xonq gis nga seytaane sax am na lu mu bëgg mooy an yusbaha li xayrillah li anna hada shirk na ngi rendi te yàlla taxul ñu rendi li tax ñu rendi mooy xàmb bi billahi alladi la ilaha illa hu gëm ku gëm yàlla ku wàkkilu ci yàlla ku wéetal yàlla ay xàmb nekk fii nga jàng ayatul kursi jàng tàmbali surtu baqara jeexital da nga dem sent ko laa yusibuka illa al aafiya dara du la dal wallahi al azim dara du la dal boo defee say askar nekk ku gëm yàlla nga jàng fatiha tàmbali jàng fatiha jàng tàmbali suratul baqara jàng ayatul kursi jàng aaya yi ci suratul baqara dama ni nga dem sempi ko dama ni koo tëdd nelawal jàmm rek moo lay dal dara du la dal loolu ay naxata kandang laa ki caaxaan rek léegi su ko defee ku feebar ci famille bi daal di ko fay indi gis nga seytaane bi su toogee ba meraat dere rek loolu lay def di kat dugg si waat waa ji ne ah gis ngeen ko atam de bañ ko sangee wéroon na yooyu yëpp ay yëpp seytaane la dara dem ci bu xaabakat yeeg seetkat yeeg ngisaankat yeeg fettaawkat yeeg noo ko mën tuddee ci bokkaale yàlla gi la bokk giñ ci kudul yàlla subhanahu wa taala giñ mooy lu màgg lii nga xam ni pour ma wax ko ngeen gëm ko faw ma am lu màgg lu ma teg ci pegg bi allah léegi sa xol bay jeex da ngay dégg la diw de bu la giñalee ci sëriñ bi nga xamal ni wax na dëgg ça veut dire que mooy bu la giñalee ci yàlla xamal ni day tax loolu mel na ko mu xaala tamit loolu rek la diw de bu la ay kooku mun de bu la giñalee ci sëriñ bi nga xamal ni wax na dëgg mooy bu la giñalee ci yàlla kon mooy day fen maanaam daal léegi yàlla ci moom diw lañ gën a respecté ci yàlla subhanahu wa taala mooy kii màgg na màggaay goo xam ne place yàlla rek laa ko mën a jox moo tax may giñ ci moom pour wàññe ne lii danaa ko def wala dama ko def loolu mooy giñ moo tax yéen yàlla bi ne omar man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw li yasmut ah jékki-jékki takk ay xora ci ay per abdullah ibn masud dafa ñëw fekk soxnaam zaynab takk benn xor te taw ci mu ni ko li la la mu ne ko haada haadihi min alwaahina lii day tax ay feebar yu doyadi mu ni teg ko sànni ci àll ba ni ko waa kër abdullah ibn masud ñoom doyloo nañ sëkk la yàlla yoro ko yonanteem bu ma ko gisatee mu dugg fi rek toskare ñaan nii la nii la jullit war a amee fulla gëm ni yàlla mooy dimbalewaate gis nga fi mu ne nit ki lam takk ci diggle lam takk ci kuréegment lam takk ci këstan waa ca fépp ci bokk yam wallahi bu jaaxle dikkee ah est-ce que mos ngeen a seetlu ku takk ba fees dell accidenté gis nga médecin yëpp la ñuy tekki sànni fële te li may wax fii ci àddina bi de médecin bi jàng diine xamul dara waaye gis nga lii ak loo mën a wax nga lay jëriñ médecin bi da koy tekki sànni fële parce que dañ lay opérer dara du la topp sa tubay ju ndaw ji sax dañ koy summi allahu akbar gis nga te loolu ci àddina kese la de nga nangu lépp dégagé wu te loolu du mbirum diine de mbirum médecin kese la médecin bi moom jàngul aqida jàngul fiq jàngul dara waaye gis nga bu doon dëggaat jëme ko wax mu tekki sama affaire yi xalaatoo kon danaan la bu dee gëm ngeen ni sa affaire yi moo lay tax jëlal say affaire nga dem nga faj sa bopp allahu akbar bi ngay accidenté affaire yi mënu ci dara ah moo tax yàgg naa leen wax ne gis nga su ma seetloo ci dëkk bi dugg ci biir saal yeeg biir kër yi gis néeg yi nañ ko feesaleeg ay photo ay xibaar allahu akbar sama damay tiit sama xel day delluwaat jamonoy nuux stratégie bi la la seytaane jàngal mbaa am ngeen ni des na tuuti photo yii dinañ ko def ay esthétique mbaa am ne def ñu ngi leen commencé jaamu dugg naa ci kaar lii moom bi umme ay nañ la liñ naan lay tam xabaru kan moo ayal dugg ci kaar gis benn waay ñëw ci photo bi ni nii ñaari loxoom bi nii raay ba ci suuf doo ko def dama ko gisee rek ci laa ne kon man léegi si jóg ak jaamu moo ci def léegi fi mu nekk nii maa day yuxni haada lu lu muy jëriñ photo nga xam ne ab tubaab moo ko defar ab tubaab ab yéefar ah écran boo xam ne benn bi dafa naa defar bu mel noonu mën na koo fotal gis nga amut lenn loo xam ni bal sax yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam fépp koo xamante ni nataal nekk na fa sey gis nga gis nga tey boo jëloon benn waay seytaane jàpp nga di ko mocc ay xaawa ci bettaaw ci téere nekk fii wala ay photo nekk wala jigéen ji muuru nekk da ngay mocc ko son dara du sut gis nga seytaane si yooyu la ñuy làq moo tax même ñi nga xam ne dañuy mocc yu mel ni sax ba wax wekkil lii sànni tegal lii sànni dindil lii dindil lee gis nga seytaane yi léeg-léeg ñu ñu wax wax yoo xam ni sadaqaka la wa huwa kasib léeg-léeg nga gis ni ñu ñuy yaakaaree diine te dañuy jëfandikoo ay seytaane léeg-léeg nit daanu ay rabag yi demee di wax wax loo xam ni xakkanee ko ñu teg ko ci rajo ba nit ñi dégg nga xam ni am na ñoo xam ni wallahi yaa ngi yaakaar ni ay jaami yàlla lañ teg wallahi obbaadu shayatin chaque année bii la ñu dem ci géej gi di faray ay rab yi nag yu ñuul am na ci ñoo xamante ni boo duggoon ci seen saal da ngay da ngay da ngay demee ne sa waay fii puudar kër puudar defaree téere la li may wax lu ma xam la am na ñoo xamante ni yii la ñuy dundee lii mooy li ma leen waxoon ci bind ba leen baax ko seytaane su ñëwee danaan la baax nga ñàkk sa taawaan mbaa sa baaraam dagg mbaa sa sa aawa dee mbaa mbaa mbaa nga liggéeyate kenn ci famille bi wala boobu nga jël dereti mbër dereti jigéen ju gis baax bindee ko alqul wallahu ahad wala nga jël kaamin tàbbal ko ci biir poos wala nga jël deru xaj toog ci li ci wird ab benn tur bu ñu lay jox nga di ko wird ci kaw deru xaj der bu ñu fees nga koy wirdee wa illaa boobu da ngay julli ñeent fukki guddi yoo xam ne chaque jour da ngay julli te doo jàpp gis nga lii may wax moom la ñuy def gaa yi ñoo leen koy def lool wala boog benn pied islam yi ponk l'islam yaa ngi sànqal bu la neex bu la neexee doo woor bu la neexee doo joxe asaka gaa yi dem màkk lañ gën a yeb moo tax da ngay gis ñu ci bari duñ dem màkk te am na ñu demee màkk am na benn xadis yéen ci yàlla bi ne ne képp koo xamante ni dund na mu am lu mu demee màkk te demul màkk na dee nekkul juif baa mu nekkul chrétien lu ko neex na dee parce que dafa tàq benn pied ci pays l'islam yi wa illaa boog mu ne la bul dem ci julli mbooloo bul jullee ca mbooloo yaay kan ndax da ngaa jëm ngeen tuuti ñaata kilifa ñoo fi nekk ñu ñuy yaakaare diine kenn du leen gis ci jàkka yéen ci yàlla bi nee na su ma amoon ku ñëw mu jiite léegi ab ab aw mat laa yore ma dugg ci biir kër yi boo duggul dem jàkka rek ma lakk sa kër ci kaw ñii duñu ay jullit ñii duñu ay jullit ñii du ay jullit ba nga ñetti yoon ku yent bi nar a lakk sa kaw ak ni mu amee yërmande ngir demoo jàkka lu tax du ma dem ndax yaa gën yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seytaane mu ne ah ça va yow booy dem ca mbooloo ma léegi waaye dañ lay miin de ah jàkk ne yow ko war nga ni sëgg wër nga sëgg sëgg fii sëgg sëgg sëgg nit ñi li ñuy def nga di ko def ah loolu moom xam nga ni gars yi dañ lay miin il faut nga tëju ci biir néeg bu ko defee ku la soxla liñ lay gis lu bari ndax nit ñi buñ lay gis lu bari da ngay sàppi su ko defee nga bàyyee dem jàkk lii ma war a ñu bari duñ dem jàkk màkka nag ah yow kilifa gu dal yow nga ñëw te wax waaye sa mbagg mii di feeñ ngay ci pox ci pox yi daw sa baal mar war nañ ni sa waay fa la koy entraînement xam nga loolu moom du kiir bu ko defee doo dem màkk parce que da ngay ñëw ma ñëw ngay buuxanteeg man ko yaay sëriñ bi de bu ko defee doo dem màkk gis nga seytaan fii lay jaar nit am na imam bu mag bu ñuy wax Cheikh Abdul Qadir al Jaylani donte li ñu koy waxal fii lu bari ay kàcc la du dëgg imam Zahabi nee na xaw ma koo xam ne kàccal nañ ko ci ay xuraafaat lu toll ni li ñu kàccal Cheikh Abdul Qadir al Jaylani dafa toog ci néegam benn bis mu gis benn leer leer bi di wër ci biir néeg waaye leer bi dafa xonq mu dégg ko nan ko eh Abdul Qadir Jaylaani sama jaam bi kontaan naa ci yow gërëm naa la bàyyil julli ma ni ciw saytaane bu bon bi nga doon mu toogaat tuuti leer bi soppeeku nekk lu bula di wër néeg bi naa eh Cheikh Abdul Qadir Jaylaani sama jaam bi kontaan naa ci yow wàcc naa la julli mu ne ah Iblis man munoo maa nax iblis daal di koy feeñu ni ko waaw yow nan nga def ba xam ni lii iblis la te man lii nax naa ci sa junniy junniy morom yu ñuy askanee jii mu ne ko damaa xam ni leer bi bi mu ñëwee daal njëkk a xonq mbaa mu gula te yàlla subhanahu wa taala amul luy xonq ak gula leeram gi daal leer naññ tey soppeeku nga ñaari yoon te yàlla du soppeeku subhanahu wa taala ak leeram genn gi la nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaahu lil misbaah fi zujajati zujaja ka annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubaraka nii lay naxee nit ñi moo tax suñu borom subhanahu wa taala mu ne nañ moytu bokkaale yàlla subhanahu wa taala gis nga doomu aadama bi yonent bi nañ ko jox palaasu yonent sëriñ bi ñu jox ko palaasu sëriñ mënta xitali kenn da ngay gis koo xam ne ndeysaan day dem ba ci armeel bi mu jonkam ay sëriñ diw dimbali ma sama soxna saa nga hôpital ma ngay mat waay waay kii dee benn ba ba ba ba nëb ci suuf si nëb sax laa wax nëb ndax ku dugg ci suuf si ku doon leen suuf lekk la amul rafetam loolu yàlla kullu shay'in haalikun illa wajha minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra nga di ko ñaan na la xitili sama jabar bi sama doom bi déedéet xam nga problème mooy dañuy jël cërëb yàlla jox ko yonent bi mbaa ñu jël cërëb yonent bi jox ko sëriñ bi mbaa ñu jël cërëb sëriñ jox ko cërëb yàlla subhanahu wa taala déedéet dañuy wàcce yàlla palaasam moo tax suñu borom ne wa maa qadarullah xaqa qadri lii nag war nañoo fexe mu jóge suñu biir kër yi am na ñoo xam ne tey pettaaw ngisaane am na lu ñuy tuddee xaw ma nu mu tuddati suñu sàccee loolu ñuy def géndal affaire iblis yi affaire seytaane yooyu affaire géndal loolu da koy def kooku bu xamoon gumba solo muy géndal na nañ jàpp cee nañ jàpp cee gis nga iblis moo koy def rek bu ñëwee ñu daal di jàpp kenn fekk kooku dañ koo toll kooku xamul gumba kii def géndal moom ñaata mbir moo ñëw bett ko mu yuuxu ay loxo muy su ma yëgoon diw kañ la dee moom daa xam lu xew kii def bettaaw nga ne moom moo lay wax lu xew fa muy toog di bettaaw fa lañ naa ko sa bàjjen paas na rek mu fël leget ga yuuxu kooku boo xamoon ne bàjjenam dana faatu dana fël ay leget foofu kooku daa xam kumpa lu tax xamul bàjjen bi balaa moo faatu mu faatu mu xam ko da ngay waa ji bettaaw ba mu yàgg rek ñu jékki-jékki yow de sa doom ba sofër la accidenté na rek mu fallaxe affaire yi daw kii daa xam kumpa kii bu xamoon kumpa du bettaawal doom bi ba du accidenté moo tax gis nga nit ñi yàlla su ma daf leen a leeralal ba mu leer wa yubayyinu allahu lakum al ayat moo tax suñu borom mu ni ko wala takunanna min al mushrikin bul bokkaale yàlla mu gis ngeen mbokk yi bokkaale lépp lu way ëndaale àllaaxira lu dul bokkaale yaakaaral ajal gis nga nit loo yóbbaale àllaaxira ci ay bàkkaar njaalool penal sàccal doonte baaxut na waaye boo rëcci doon ba def ko boo ko yóbbaale àllaaxira fetal rek bu ca bokkaale boobu bu ca bokkaale bokk de gis nga bu ca bokk yaakaaral ajana yaakaaral ajana gis nga yërmandi yàlla ji dafa yaatu waaye yàlla mi ngi ko dencal ñi ko dul bokkaale defe naa nettali woon naa leen fa waajooja borom xam-xam ba doon nettali sunu borom soo dala atte jaam ñi ba noppi ni ñaar ñi dem leen dugg ajana kenn ki demal dugg safara mu ne ko demal dugg safara waa ji daw xel di dugg safara sunu borom daal di koy woo ni ko waa yow xanaa xamoo fi nga jëm mu ne ko ahan kay xam naa fi ma jëm kay safara laa jëm kay mu ne ko xanaa xamoon safara ni mu tàngee mu ne ko ahan kay mu ne ko loolu wut de mu ne ko ah ñàkk dégg ndigal moo taxoon tey nga doon maa dugal safara moo tax bi nga ne ma digalee ma ne xaaral ma gaaw dem ndax ma yërëm nga yërëm ma keneen bi sunu borom mu ne ko yow demal tàbbi safara mu taxaw benn place bi xaar rek sunu borom ni ko xanaa du yow la ñuy waxal mu taxaw di xaar rek looy xaar mu ne maa ngi xaar bëgg a séddale yërmande ba mu jeex tàkk su ma ci mënta am ma doog a dem allahu akbar gis nga gis nga yërmande yàlla wallahi dafa dafa yaatu doomu aadama mën naa andi ci ay bàkkaar am saalu jibaali tuhaaba ci ay bàkkaar yonent yàlla bi nee na sunu borom nee na doomu aadama bu dajeeg man dem bu yoroon lu toll ni duusi géej gi ci ay bàkkaar te bokkaale yàlla bokku ca adxaltuhum jannata bi ma kaana maahu min al amal dinaa ko dugal ajana ak lim yore ci aw yiw lim tuuti tuuti ma dugal ko ci ajana bal sax nag yent yàlla bi nee na bu ñu demee safara ba nit ñi dugg safara yàlla yàlla musal ci bu ñu yàggee ab diir suñu borom day wax malaaka yi dem leen biir safara képp ku ngeen xool xolam toq nga nekka toq xam nga toq ab toq nga xam ne mandilul sax am fi tax toq nga nekka wala mu nekk bokkaalewul yàlla nañ ko génne ñooñu bu ñu leen génne da ngay gis seen kanam yi am ay ponkali picc yu weex ñooñu lañ leen xàmmee di xam ni safara lañ génne ñu dugal leen ci am mbal ko mu ne ci buntu àjjana ñoo xam ne buñ fa yël boo rek faxasu affaire yëpp dañ ñu doog leen dugal aljanna loola sax nag yal na yàlla musal lu ci yal na yàlla may ñu aljanna kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne wala tadu maa allahi bul jaamu di booleeg yàlla ilahan axara beneen yàlla ndax sunu borom moom mooy ki bind te moom moom moom kaw suuf mbokk yi lii wane ne yàlla rek ngeen war a jaamu mooy xam ngeen ne yàlla subhanahu wa taala moo sàkk asamaan mu tiim la mu sàkk suuf mu nekk ci suuf gi mu sàkk ak mbindeef bu ñuy tuddee nit ni ko jaamu ma vraiment xel nangu na ku bëgg ku la jaamu da ngay sàkk jeneen asamaan ju dut jii fi yàlla def sàkk beneen suuf bu dut jii fi yàlla def sàkk beneen mbindeef bu dut yu yàlla yii ni ko yee jaamu ma kon mu war laa jaamu waaye sunu borom mu ni bu ñu jaamu keneen ku dut yàlla laa ilaha illa hu amut lenn lu nu war a jaamu jaamu gi tege ci dëgg te indi njariñ ñàkk gee jaamu tege ci ak neen te indi lox lu dul yàlla subhanahu wa taala kullu shay'in loo ko gis luy teree ne ci jaww ji haalikun dana alko ndeysaan dee bawoo ñu suul nëbale les màbb les rab les yàpp kullu shay'in loo gis rek haalikun day alko illa wajhahu ba mu des jëmmam ci suñu borom moom jëmmi suñu borom bi rek moo fiy des suñu borom bu nammee tukkal àddina bi mbokk yi nga xam ni la taqumu saatu illa ala sirari alxalq àddina tukki lu dul lu gën a bon ci mbindeef yi suñu borom day wax malaaka mi mu ëpp ci bopp bi malaaka mi ëpp nit ñi yàlla ñëpp ñooy àll sunu borom daal di wax malakul mawti mu faat ñëpp kenn du des sunu borom daal di wax malaaka mi ni ko am na ku des am na ku des fekk ndeysaan allaaxira taxaw na àjjana taxaw na te amatum dee sunu borom daal di wax malaaka mi ndax am na ku des malaaka mi xool wër sànqalañ yi jeex nañ melentaan yi jeex nañ mbóot yi jeex nañ rab yi fas yi mbaam yi lépp lu doon dund nit saxul di wax jeex na xanaa xamalatul arsh sunu borom ñu ko faat leen ñoom ñooñu ci lañ bokk ci mbindeef yi allahu akbar yént yàlla bi nee na ci xadis boo xam ne bu wér la yàlla dina indi dee li ñu tuddee dee ba ci diggante àjjana ak safara mu ne ee yéen waa àjjana lii lan la ñu ne lii mooy dee ee yéen waa safara lii mooy lan ñu ne lii mooy dee sunu borom ni ko dékkat da leen ne xuluudun fala mawta ba'da al-yawm léegi nag sax dakk amut dee ginnaaw tey gis nga mbokk yi yàlla subhanahu wa taala nekkoon na fi jamono kenn dem du malaaka du yonent la ard wala sama wala jibal wala dunya wala wala wala shay wala janna wala naar dara amut woon yàlla rek cappaa colu nga xam ne amut fu mu tàmbalee laysa li awwaliyati ibtidaa wala li axirati intihaa mu toog ba mu soob ko te wéet taxut wéttaliku bëgg a wéttaliku taxut mu sàkk ay mbindeef yi ñu tuddee ay malaaka sàkkaale mbindeef yi ñu tuddee ay jinne kaw suuf gi jinne fi njëkk nit moo tax malaaka yi atajaalu fiha man yufsidu fi wa yasfiku dimaa parce que jinne yi ban fi ñëwee dañ doon yàq suñu borom jëlee leen ci malaaka yi wax loolu suñu borom sàkk ku ñuy tuddee nit ah sàkk ni tuddee ay rab sàkk lépp bis day ñëwaat li mu sàkkoon lépp da ko fiy jëlee kullu shay'in haalikun illa wajha kullu man alayha faan lépp ay àll wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram yàlla rek moo fi def subhanahu wa taala keroog nga xam ne lépp lu doon waay topp lu dul suñu borom loola rek neen la lu waay doon yaakaar lu dul suñu borom loola neen la suñu borom ni lahul hukmu yàlla moom moom àtte mooy mooy àtte jaam ñi wa ilayhi yurjaun wala wa ilayhi turjaun te ñun ñëpp ci yàlla ñuy dellu subhanahu wa taala foog naa ni moom kenn ku ci nekk dee ñu jàpp ko takk ba mu dëgër summa ruddu ilallahi mawlaahumul haqq yëpp yàlla moom kenn werentuwu ci loolu moom kenn werentuwu ndax ku ko def ba gis am nga mbokk mu ko def mbaa bàyyi bàyyaay moo tax sunu borom mu ne kullu shay'in haalikun illa wajha lépp dana alku moom def sunu borom lahul xukmu moom mooy ki moom atte te mooy attekat bi gën a maandu wa ilayhi turjauna te it ci moom la ñuy dellu nu ngi ñaan sunu borom bi asmail xusna wa sifatihi al ula yàlla yàlla yërëm ñu saa bu ñu dajeeg moom yàlla yàlla jéggal ñu suñu bakkaar nangu ñu baqiyat salihaati salihaati al amal wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi